waaw waaw waaw waaw mi ngi noonu premier combat premier combat de la soirée attention Fodé jël na ko Fodé Boulansaar face Ama Dia numéro 2 Ama Dia numéro 2 face à Fodé jël na ko jël na ko mbaa du ko daan attention eh, numéro 2 daan na ko Badia daan na ko mi ngi noonu jël ko bëri lu rëy daan na jël bu rëy Ama Dia numéro premier combat la soirée premier vainqueur la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 de Fodé bu Lansar booboy premier combat la soirée premier vainqueur la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 écurie Yeumbeul Molo bëri na bëri bi daan na jël bu rëy jël bu leer benn wérante waaw waaw quartier ba seen doom a noonu noonu seen doom a ngi Ama Dia numéro 2 bëre na lu jël bu rëy ndeysaan Ama Dia ñëw na Ama Dia ñëw na turandoom ñëw na ndeysaan waaw waaw ay waay séeréer jaamu tukulóor bi daan na isu daan ko Ama Dia numéro 2 bëre na bëre jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante booboo nekkoon premier combat la soirée deuxième vainqueur de la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 vainqueur de volet bu Lansar comme ni ma leen ko waxee tey la tey la mardi 15 août 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Pape Thialis Faye à la tête de la structure Leewtoo production mu organisé Ama Dia numéro 2 vainqueur de volet bu Lansar mi ngi noonu premier combat premier combat de la soirée attention Fodé jël na Ama Dia numéro Ama Dia numéro 2 face à Fodé Fodé Boulane Sarr attention Fodé jël na ko Fodé Ama Dia waaw waaw waaw waaw Ama Ama Dia numéro 2 daan Isu daan na ko mi ngi noonu jël ko bëri na lu rëy daan na jël bu rëy Ama Dia numéro 2 premier combat la soirée premier vainqueur la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 vainqueur de Fodé bu Lansar booboy premier combat la soirée premier vainqueur la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 écurie Yeumbeul Molo na bëri bi daan na jël bu rëy jël bu seen doom a ngi noonu seen doom a ngi noonu Ama Dia numéro 2 bëre na lu rëy daan na Ama Dia na Ama Dia ñëw na turandoom ñëw na ndeysaan waaw waaw ay waay séeréer jaamu tukulóor bi daan isu daan ko Ama Dia numéro 2 bëre na bëre bi daan na jël amul benn werante moo nekkoon premier combat de la soirée premier vainqueur de la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 vainqueur de Fodé bu Lansar comme ni ma leen ko waxee tey la tey la mardi 15 août 2023 ñu ngi à l'arène nationale le la tête de la structure Leewtoo production organisée Ama Dia numéro 2 vainqueur de Fodé bu Lansar waaw waaw waaw waaw mi ngi noonu premier combat premier combat de la soirée attention Fodé jël na ko Fodé Boulane Sarr face à Ama Dia numéro 2 Ama Dia numéro 2 face à Fodé Fodé Boulane Sarr attention Fodé jël na ko Fodé jël na ko mbaa du ko daan attention eh, Fodé Ama Dia waaw waaw waaw waaw Ama Dia numéro waaw Ama Dia numéro 2 daan na ko Ama Dia numéro 2 daan na Fodé Ama Dia numéro 2 daan na ko waaw Ama Dia daan na ko Isu daan na ko mi ngi noonu jël ko bëre na lu rëy jël bu rëy Ama Dia numéro 2 premier combat la soirée premier vainqueur la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 vainqueur de Fodé bu Lansar premier combat la soirée premier vainqueur la soirée mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 écurie Yeumbeul Molo bëre na bëre bi daan na jël bu rëy jël bu jël bu amul benn werante waaw waaw quartier ba seen doom a ngi noonu seen doom a ngi noonu Ama Dia numéro 2 bëre na lu rëy daan na jël bu rëy ndeysaan Ama Dia ñëw na Ama Dia ñëw na turandoom ñëw na ndeysaan waaw waaw ay waay séeréer jaamu tukulóor bi daan na isu daan na ko Ama Dia numéro 2 bëre na daan na jël bu jël bu jël bu amul benn werante booboo nekkoon premier combat de la premier vainqueur de la mi ngi noonu Ama Dia numéro 2 vainqueur de Fodé Boulansar comme ni ma leen ko waxee tey la Et le mardi 15 août 2023 une national le promoteur Pape à la tête de la structure l'autoproduction organisée Amadja numéro 2 vainqueur de Fodé Boulansar